Ali Ndiaye et Aziz Diagne loolu la ñu waa sunu làmb andil si euh, revue de presse su tey bi donc il nous reste quelques minutes. Mm-hmm. quelques minutes yooyu dañ ko bëgg consacrer ki nga xam ne moom mooy Bambou la solution. Mm-hmm. Bambou la solution yëg nga ne sa mbër am na combat Balla Gaye 2. waaw am na combat bu mag a mag a mag. moom ak Tapha waaw yaa ngi jëloo combat bi. <laughs> waaw. ah. <laughs> dañuy dañuy delloo bumb rek. da koy dóor 2-0. incha allah rabi. mais Bamba loolu loolu foo ko teg GA bi actuellement raw na leen de lan nangoo loolu. lu mu raw raw raw mënu raw Balla Gaye ndax Balla ko daan. mais instant bi yéen a nekk si saako yi de. non ñun ñooy favori. ah non mënu ma naa ma lambalo. yaa kii mooy favori Balla mooy favori. ci kanam Tafatin mooy favori. Tafatin ay favori de. mais amul bor la Abdou Baaxum. kuy favori. non xam nga. da ngay wax léegi ne mën nga nekk favori ci ci kayit quoi. waaw mais mbër mi mënoo bëri moom mu daan la nga nekk favori mu nekk sa favori. mu nekk en terme de performance la preuve mooy. jamono yii. Ah. depuis 2013 2023 maanaam maanaam maanaam xam nga pour ñu développer. Mhm. Euh, kii dafa wax ci combat Modou ak sa Thiès. Ah. ak actuellement nii nii. Mhm. Eumeu Modou Lo mënta bëreeg benn benn combat ru xale yi. Mhm. yu am impact. maanaam ñi mu bëri loolu ñëpp ku mu ci doon bëri waatam mm-hmm. amul impact tafatin actuellement nii nii nii mm-hmm. bu ma ko yoroon moom mm-hmm. dinaa ko moytuloo te Balla Gaye war woon jël Balla non da koy dëppaat rek da koy dëppaat waaw loolu tey da moo koy jël du yoon Balla Gaye ku jàpp ba ne dafa feebar yaa ngi nax sa bopp <laughs> te Balla leen dafa am dafa bëgg a wujjante lu tubaab di ne dafa maanaam dafa nekk nit boo xam ne buggul defet maanaam moom ñoo yem rek moo tax su ma yóbbee mbër ndam rek laa gis. Hmm. muur dimension yi mu tollee nii. Balla Gaye da ci tolluwaat de bëtëm bi yëpp ci wujjante boobu la ko teg. Hmm. yow da nga gëm ne moo Balla. moo tax tabaateen na jàpp bala Balla Gaye màgget na rek bis ma simbee ko ba ñëw esat dina xam ne bala Gaye xale la. <laughs> yow yaay simbee ko wala Balla mooy simbee ko. maanaam moom yëpp. juróom da ngay simbee ko maanaam Balla Gaye yëpp dañuy dox yow. comment boobu lu mu la jaral. lépp lu ma jaral par exemple parce que bal dafa bokk ci làmb waaw mais Sénégal moo moo nekk dëkk boo xam ne da ngay daanu benn yoon rek wala ñaari yoon ñu ne dee nga ci làmb mhm. te naa bal la Ousmane Diop ku ko daan ci làmb nga téere waxuma la ñi de uh-huh. Ousmane Diop rek ku ci làmb muy daan kon fay mais yow xam ñoom ñaar ñooñu donc laa lay jox uh-huh. Ousmane sàmbaloo bi uh-huh. ku ko daan champion mais est-ce xam nga ne Tapha Tine màgg na si lépp dama koy daan. 9 ans sans défaite. waaw yow yow yow sàmm bambo bambo. déggoo ma de ah. ba léegi mooy kër ga toog. Balla mun na am ñëpp feebar. waaw ah. bu amee Tapha Tine day wér bu amee Modou Lo day wér. <laughs> lu lu garaaw laa lay wax nii. Hmm. Gris Bordeaux hmm. sax mun nañu ko naxante ak moom. Uh-huh. mais Modou Lo dañuy wér Tapha Tine dañuy wér. kon da di repaat Tapha ci kàttanu suñu borom. mu nekk 2 ci kàttanu yàlla loolu loobi la rek. tey lu Boy Niang daan Balla Gaye du jàpp jàpp Eumeu Sène daan ko deux fois. Uh-huh. Balla Gaye jàpp Modou loo daan ko deux fois bu ñu tëj stade bi. Hmm. noonu laa mënee Tapha Tine kon Tapha Tine xamul lu ko jël avance. du yoon mu koy jël. ta combat bi taxoon na bu yàgg de taxoon na bu xaw ma ne ñoom la lañu doon nelaw ba xamuñu mais combat bi taxoon na bu yàgg. yàgg du yoon sax mu koy jël. Hmm. moom Modou la waroon jël te Modou sawaru pour bëre ak euh, Tapha Tine. Hmm. ndax Modou boo ko sutee ko du la daan. doo ko doo daan waaw dëgg la. fii ba suba du la daan. munu daan Lac de Guiers munu daan Balla Gaye munu daan Bombardier. Gris Bordeaux sax munu ko daan. Baye Mandione sax munu ko daan. dëgg la munu daan ah non. yow tamit munu ko daan. mais moo daan Baye Mandione. non moo daan Baye Mandione la ko daan. Baye Mandione la ko daan. allo ah, Baye Mandione moo ko daan. waaw ah. bi mu am kat at bi mu am. xaalim Ndiaye Baye Mandione am ah. amu ko. xaalim Ndiaye bii nekkoon Thiaroye. Hmm. pourtant dafa daanoo Malick Niang. Hmm. ñun sport rek la ñuy sim. xaalim Ndiaye 2 waaw parce que làmb dañu xool benn mois boo xam ne. kii amul tuuti làmb uh-huh. amul mbooloo ci làmb. dëgg la mais kii nga xam ne mooy dajale mbooloo kooku lañuy ñuy jàppale CNG itam doful. mais tamit am nga combat le 5 mai de te yow da nga gëm ne da daan Eumeu Sène loolu foo ko teg. ci sunu suñu borom lu yàlla di maye bu ko nangulee. Ah. dañ koy daan. da ngay daan Eumeu waaye yow man maa ngi ci Modou fu mu nekk nii lu ma waxoon caatu yow. a bëreeg le roi. caatu yow lu ma ko waxoon. nekkul su bëgg a bëreeg li ma waxoon caatu yow. mais su ma daanu nekkutuma ci ñàkk jaruñu de. maa ngi xool lu may daane Ndiaye Kër. te maa ngi xool lu may daane Modou Lo. yu daal Lo sama lamb la daa ko tax Modou moo la tere nelaw sama lamb la. Hmm. te buñ ci yegsee dinañ xam ne xale màgg na wallaahi waaw mais kon daal couronne bi si sa loxo lay mujj. ci kàttanu sunu borom day duggaat ci kër gi kër Double Less ci kàttanu yàlla. gars yi dañu lay vaar de. waaw yow man damaa ragal vaar man damaa ah jar ragal de. man may wax dañ lay tiktok di eh, lundi euh, sëriñ yi ngay gis bi samay wax la ñuy rek. Hmm. ñoom ñooñu ñenn ñiy def seen groupe. Ah. samay wax fi barki démb ñoom ñoo indi fils de Balla. Hmm. Lac Rose indiwul kenn de. Ah. benn tin la indi mu jàppale ñoom ñëpp. mënuñu ko daan te koo wax koo dégg micro mu ne la Fils de Balla mooy daan. yow nga yóbbu sa mbër ñu jàpp ko ci gàllaaj loolu dafa ñaaw man ma indi caatu caatu yof daan ko wax ko avant combat bi da nga koy duma ba mu dem ardo yaa ngi fii. dëgg nga toog année bi yëpp amoo defet loolu lan la. sant saa Saliou ak ah yàlla. Mm-hmm. la mooy sa secret. Eh, yàlla rek. xam nga maanaam boo nekkee xale. Uh-huh. Euh, xeex yi bari sa kaw da ngay moytu. boo moytoo rek. Uh-huh. rek foo bëgg a yegg di nga fa yegg. dëgg mais dinaa la laal ak benn mara boo xam ne tamit moo dafa xew si jamono Saa Touba dafa mel ni Saa Touba la mën de da lay kàccere de. non man. Saa Touba. man euh, indi naa fi. Abdou Bakhoum ak ragal Saa Touba. non non uh-huh. déedéet euh, Saa Touba sama mag la maa ngi koy nuyu ah, oh, maa ngi moo indoon euh, Dem ma indi jam Dem. ma indi jam téeri daan ko. benn. waaw ak ban. bëri nañu ay ay mbër quoi. Uh-huh. su ma jumalee. mos na la daal moom. mos na la daan mosuñu mosuma indi mbër mu daan ko wax dëgg yàlla sama mag la quoi. waaw dama ngay. nuyu mais bu boobaa Modou Lo ko indi man maa indi Sa Thiès. nga daan ko. te dégg naa mu ma indi Tapha maa indi Balla Gaye. cey combat boobu. Ah. Ah? waaw Sa ah. fi ma teg nii. Ah. il ma leeral foofu. waaw fi ma teg nii tafaatin moom mooy favori devant Balla Gaye 2. waaw hmm. en terme de résultat laa waxee. non non performance parce que ces dix dernières années. bokkul sax 2014 2024. Uh-huh. Balla Gaye 2 six combats la bëri. 6 uh-huh. victoires 3 euh, victoires 3 uh-huh. def 6 combats 5 victoires benn défaite. bokkul. c' est la même chose. en terme de résultat laa wax ne man Tapha Tine laa jàpp ne moom mooy favori. favori nag ne veut pas dire yaay daal. li mu wax nii. est ce que mu wax nii. moo dafa am feneen dafa am feneen fu muy waxee làmb dafa am science occulte dëgg la gis nga làmb ku ci génnee gàllaaj rey nga sa bopp dëgg la boo def boo degee des fois ñu naan mbër yi da ngeen nax seen bopp li ngeen di fay dafa bokk ci làmb mystique dafa bokk ci làmb gis nga mi wax léegi lu garaaw nee na Balla Gaye mën na feebar waaye buy bëreeg Modou Lo day wër buy bëreeg Tapha Tine day wër loolu baatin la du zahir léegi damay def toujours balaa mooy ñëw si yow Balla ba fan nga koy yóbbu day nekk roi des wala wala Sa Thiès sa koy lekk. ci kàttanu sunu borom laa la wax de. Ah. baal baal boobu ji génne ci làmb ji. ah non. parce que yaa ngi wax Sa Thiès bi mooy nekk roi des arènes Balla dina loolu mun naa ko wax. na génn gum ci dof bi ba pare. na génn gum ci non lii du làmb. lii du làmb na génn gum ci ba pare. moom moom kàddu làmb lay wax moom kàddu làmb la man lu ma sunu borom may laay wax. na génn gum ci dof bi ba pare làmb de Eumeu Sène daa mel ni ngeen bombardier rek ah, rek lamb lu ah, ah. bombardier daal yellagum ci dox mag bi ba pare mais pigir waa bi Eumeu Sène moom waa ji rey na ko ba pare <laughs> Eumeu ko dara de lu mu war a def ci daan Eumeu Sène mais ci biir bëre bi gis ngeen li fa xewoon crochelaaw uh-huh. bi mu jël nga xam ne crocheloo la du ko Tapha Tine jëlee uh-huh. jàppalante tuuti ko mam bi yàqu uh-huh. tactiquement ci biir bëree bu sew. waaw ëmb seen ko pour mais nag jeunesse. dafa am solo ci bëree. Imbakar. waaw maa ngi jégalu de est-ce que xam nga làmb jooyu noonu kenn nangu ci woon wax sëriñ yëpp. Mhm. ma damay parce que diw de daal yomb na. dëgg la man damay wax ba wax vaar bi. léegi yow Sa Thiès nan lay daanee monsieur. fan la ñu bu ñu nee suba la làmb ji invité waat ma fii lu ma sonn sonn sonn ci bagage naa toog fi ne Sa Thiès ci kàttanu yàlla nii lay daanee ëmb seen. mais instant kii wax tawaatin dina kaw. Uh-huh. bu jógee ci kaw boobu dina dem ardo uh-huh. maa ngi waat soo semaane bu baax ndax combat tawaatin boobu am na lu ma ci def man tamit jàpp naa bu baax a baax. waaw di koy nuyu bu baax uh-huh. wax loolu ba wax ba déggante tawaatin nee ko Eumeu Sène di nga ko dóor ba mu ba mu xaw a bu jëlee ko day ñëw sa tànk. bu ñëwee foofu nag foofu yaa xam nag loo fay def. boo la jógee foofu vaar dina am. bu bu ñu demee vaar yow dañuy yëkk sa loxo. Sa Thiès nan lay daanee Modou Lo bàyyi ba mu taxaw bii laay bii laay njëkk a wax bu ëmb seen bii laay njëkk wax ci kàttanu suñu borom. gars yi man dinaa fi invité veyu veyu bi jël leen ma direct. béyu combat bi incha allah dinaa fi invité. Bambo la solution mu taxaw. ak Serigne ak Serigne Eumeu Sène. ak Serigne Eumeu Sène mu ñëwaale. da ngay xool Eumeu Sène Serigne bu mu gën a yaakaar. nga teg ko fii. la muy sekk loolu bàyyi naa ko sa loxo utal ma Serigne Serigne Eumeu Sène le 4 mai. le samedi 4 mai ñu toog fii. ñu toog combat boobu ñu xool fan la Eumeu seen di daanoo. te Abdou baax xam naa du nangu loolu moom. ah Abdou baaxu mii du nangu loolu moom nangu Abdou Ba. non c'est-à-dire lu waroon euh, def ci def na ko. waaw ah. <laughs> euh, Eumeu Sène moom wax dëgg yàlla dañu koy sant bu baax. Hmm. parce que bi Tyson dugalee roi des arènes. Pikine hmm. mu rëcc ñu ci bombar Bombardier. moo dem jëliwaat ko ci Bombardier te waxoon na ma ne roi am fu mu nekk dinaa ko jëli. Hmm. effectivement ki ko jël la dem jëli ji ko dem ba mbuur dox foo ko teg ci moom. nangu ko. indiwaatoon ñu ko. kon nañu ñaan yàlla. Mm. <coughs> lii rek xam naa émission bi dafa jeex. waaw xaaral tuuti rek ma avant ngay tàggatu. ñu ñëw si Seydina Seydina la làmbaloo. Mm-hmm. Seydina li ma gën a impressionné si moom ce sont les dates ak analyser combat. est loolu lan la ko may Seydina. yàgg ci expérience. damay faral wax naan le talent est dans le sang l' expérience est avec le uh-huh. l' expérience du jour au lendemain. dëgg la man photo làmb rek am naa ci 15 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. bokkul ak bi may ànd ak mbëri yi ba may fal président écurie may am 18 ans boobu ça fait ça remonte des années. Mm-hmm. donc vécu la rek. vécu la vécu mais sa waay xamuñu ci làmb la ñuy wax. waaw ah. des fois am na yoo xam ñu ne da ngaa faral di man aw ma jotu far man faamuma kenn yàlla laa faam. Mm-hmm. dama bëgg làmb gëm ko. su may analyser li ma gëm laay wax. gis nga Salif Sakho alias Sathiès. c'est l'un des de sa génération. c'est le. c'est l'un des meilleurs de sa génération. tubaab nga làkk de wax ko olof. gars yi dafa bokk ci ñi gën a xarañ ci làmb ji. Salif Sakho alias Sa Thiès. Mhm. kay wala li mu boole moo bari li mu boole moo bari. mooy lan mais nag il est il est virevoltant. virevoltant plein de vivacité. vivacité techniquement. techniquement il est très fort. na oh. xeetu bëri bu muy bëri. Mhm. xaaral ngay sax bëriwul. Mhm. Sa Thiès. léegi nag il faut il faudra retenir une chose. mooy lan gis nga dof bu mag bi Tay Shinger. Ah. nee nañu mag la waaye moo ëpp doole xale yi. Bambo nangu loolu. waaw loolu moom la concerné parce que dafa am mbërëm te tamit j'aime ça. Mm-hmm. nga am sa mbër gëm ko. Mm-hmm. gëm na sama mbër moo mën. j'aime bien. non kii sama jàmm bi je l'aime bien. Uh-huh. xoolal des fois moo tax ma koy seetaan. Uh-huh. bu ma koy seetaan damay xam ne kii dafa gëm mbërëm. Uh-huh. mais des fois damay ree parce que dafay défendre mbërëm dëggantaan. loolu loolu c'est très bien. ñun reporter ñun journaliste. léegi Sa Thiès nga ne il est techniquement fort. il est très fort il est ah. ah. ma leen mënee. loolu Sadio mën a yéen a yi na génn ci dof bi. Ibakan Sathiès da koy génne ci Eumeu koy génne ci Eumeu Sène. Ah. dafa leer de. ni ni Sathiès. am na ñenn ñoo xam ne ñoo ma sot niveau. ci ñaankat yi ñoom ñoom borom daaru. kii ah. xam na ko borom daaru bu Pokola. ak ah. ñoom Samba Ndour mais am na ñenn ñoo xam ne nu ma leen mënee loolu la Sathiès mënee seen mbër. yow Sathiès Reug Reug yaa ngi woon Sathiès. karap yi baa ko wax de maa génnee kat ndabu laax yi man leen karap yi day leer force. bu ñu jógee échange ñu jox suñu kayit ne seen ndam ñëw na mais bu ñu bëree si digg géew mu Reug Reug te loolu la ko waxee woon coach. ah ah sant yàlla alhamdulilah parce que mooy may bu la mayee. te looy wax it jiital ko ci. looy génn wax alhamdulilah di ko ñaanal rek. loolu di gën di sax. Ah, léegi nag Sa Thiès. Sa Thiès daan na Eumeu Sène. loolu mooy surprise loolu mooy exploit. Hmm. daan na Eumeu Sène. man Eumeu Sène daan na Sa Thiès. du ma yéen. du la yéen déedéet. Tay Shinga dama xam waa jooju. Hmm. kooku c' est le plus grand guerrier de l'histoire de la sénégalaise man loolu laa jàpp man. histoire de la mu Sénégal. Eumeu Sène mooy le plus grand guerrier man loolu laa gëm. guerrier génneel ces ces ces quinze dernières années. Hmm. cinq combats yi gën a métti ci làmb ci waayu Eumeu Sène moo ko bëri. dëgg la c' est un te day dem di ay atam day gën di dem muy gën a am doole. Hmm. na Sa génn foofu ba pare bu fa génnee. Ah. bu mbëkkanteeg Modou Lo daan ko. Ah. ah non Salif Sakho là là là vraiment vraiment vraiment. Ah. vraiment on dira Sa Thiès ce gars là. Ah. xam nga roi des arènes. roi des arènes titre bi gars yi dañ koy contesté qui bat le roi devient le roi. ku daan buur mais Sa bu daanee Eumeu Sène. daan Modou Lo. ah non titre boobu titre boobu xanaa xamoo Sa Thiès Balla Gaye moo koy tëj ci làmb rek. waaye bu tey tey tey tey tey Sa Thiès mbiram nii lay def. waaw. mais dugg na ñoo bokk catégorie mais Balla moo koy tëj ci la tey ñoo bokk adversaire euh, maanaam mbiru man mbiru baatin laay wax quoi tey bu Sa Thiès ñëw arène nationale Balla Gaye ñëw Sa Thiès day mais booy ñaa tamit sonal la sa famille sa famille sa monsieur le maire monsieur le maire dóor moo di waay Modou Lo jàpp mag monsieur le booy ñaari yoon waaw mais si kàttanu yàlla Sa Thiès moo koy daan non booy ñaa la laa wax booy ñaa boo ñoo guma si moom li mu mën yëpp mu ngi def pour bëre Sa Thiès ñun xam nañu lépp mu ngi def lu nekk pour bëre Sa Thiès. moom Boy Niang waaw. Iba Kane. Ah. si toutefois si toutefois Modou Lo croiser Sa Thiès. Ah. daan ko. Ah. ce sera le le meilleur roi des arènes. oto nit ñi ko laaj dafa waroon jëndal oto ki nga xam ne dayee bu àggee foofu tey PPV bi dox billetterie bi dox lépp dox Ligue Nicolas mënul génn ci combat boobu sans jëndal grand Abdou Bakhoum ki nga xam ne mooy mais ay grand wala xaalis yooyu day jeex mais oto ah, bëggoon nañu tey jëndal ko ki nga xam ne mooy Abdou Bakhoum mérité na ko te ensuite Ama Baldé dafa war a jàppe fukki loxo ki nga am mooy Abdou Bakhoum mm. parce que da koy nekkal fu ne mm. da koy xeexal fu lu ne mu dégg ko. ñu lépp ngir Ama Baldé bokkul ak Ama Baldé nday bokk ñu bàyyi. doomam rek la. dëgg la munoon na dem wuti leneen mais lu ne mu ko siy dégg il est c'est un famille. dafa am ay doom am ay jabar am ay mbokk. mais muy dégg lu ne si ci internet bi mais taxul mu bàyyi ku mel noonu boo ko amee da ko war a jox téye fukki loxo Ama Baldé warul def loo xam ne Abdou Bakhoum yëgu ko Ama Baldé warul làq blessure ki nga xam ne mooy Abdou Ba euh, Abdou Bakhoum bu ko làqul woon combat bi tey mun naa wax ne il a le droit de renvoyer le combat tey du métti bi du demee nii moo tax ma koy jaajëfal di ko gërëm ku mel ni baax Bakhoum dañ ko soxla si làmb maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla may gudd fan ak ba nga lan ngay tàggatoo ba xam maa ngi tàggu rek xanaa ni tàggatoo daal di wax rek ne làmb ñun suñu yëf la quoi buñ ci dugal affaire tubaab buñ ci dugal dara euh, bari na ci ay règlement yoo xam ne ci tubaab la ñu ko jógee hmm. mais itam nañ defaat attention ci dopage dopage attention ci dopage daam dopage si làmb si dopage non loolu moom loolu sama xam xalaat la ak sama gis-gis. am na ay mbër yu doppewu am na combat bu mujj passé fii te niil. nii ci combat yu mag. am na ku jël sa paas. ban combat moo fi mu làmb la ban combat ah eh, kii fii sa Balla ak waa Jalle non xaw ma ban la xaw ma ban ah, ah, ah. na ñu moytu dopas. dopas daal ci indee voir. voir nañu indi ne lu dopas ci làmb. am na si ah duma xam nga man itam man du ma waxantu ku ma xam ku ne. parce hmm. que Cheikhul Khadim xam ne du ma. mais maanaam xam nga. <laughs> Euh, euh, ah ah. dama lay wax loo xam ne. lu wër te wër. voilà am na dommage ci arène million de nit mën na nekk ci benn barab. waaw kenn nit gis ci loo xam ne kenn du ko gis. ci combat fils de Balla ak Lac Rose. loolu waxuma la benn combat. ah moo nul la. waxuma benn combat laa wax dama ne nañu indiwaat doppaas xaw ma ñëw ku ci doppaas kenn. dama ne nañu indiwaat xoolaat doppaas ci la. xool contrôle anti doppaas. Sall Sall ko Sall kii Sa Thiès ak Lac Rose ak Deo xool nañu. yóbbu woon nañu ñaari mbëri dama ne man laa wax li ma wax laa wax dama ne. nañu indiwaat dopage ci làmb xoolaat. nga xam ne moom dégg nga lii li li Abdou Bakhoum wax nee na dopage am na ci arène bi ah te combat bi niil bi mujj niil nii moom daal am na ci ñaaw. ñoo waxuma bu niil de. Ah. am na combat bu bu niil. ci combat yu mag yi. ci combat yu mag yi am na dopage. am na dopage waxuma benn combat. jërëjëf looy tàggatoo. bon di tàggatoo may tàggatoo rek di wax rek euh, euh, monde làmb maa ngi nuyu. di ah. nuyu bu baax. Euh, Euh, rawatina le président déménagé. Mhm. Euh, Bourkhane Wade. Bourkhane sama grand bu baax nuyu change yëpp. Mhm. nuyu mbër yëpp nag yi nekk en activité ak. Mhm. ñu retraité ba ci manga 2. waaw ñu njëkk a nekk roi des nga xam ne roi des arènes mu am solo. manga 2 day dugg ci làmb ba ñibbi kenn wax ne manga 2 yi ci làmb ci moo nekk moo njëkk a nekk roi des arènes. kon mbër yi nga xam ne ñoo nekk di compétir dégg ay roi di bëreeg ay roi. nañu xam ne. ku ci gudd fan rek di nga mel ni mànga moomu di nga ñëw ci làmb ba ñibbi seetaan hmm. tu ko am kenn ni mànga ñëw na ci làmb wala kenn nañu yóbbaale loolu hmm. di ñaan yàlla yu tam Lamine euh, émission bi nekk hmm. émission bu neex neex na lool parce que yow na nga bokk ci làmb ndax ah, sama waay sama jaam bi mu ngi naan bokk na yéeg na ci làmb waaye nag 2015 ak léegi dafa mel ni démb ci man kon ci ñun lu ñu xam rek nga xam ne ñun loolu la ñuy dund ci làmb nee naa la mennam Falaye Baldé Pikine moo bëriwul ma taxaw ci ginnaaw mais muy Papa Diop muy muy Boña. Mhm. muy ñeneen mbër yi ci bare bari kenn ku ne ci takk nga sa ngem ma taxu ci sa cumikaay xaar na nga bëri ci daan mhm. ba nga am leen ñu ànd ñibbi kon dañu ñaan yàlla rek euh, li des ci làmb yi mhm. ci kattanam lépp rafet lépp yegg lii fi am muy ay ordonnance yu dul jeex ñu koy dugg ci kii daal muy wér di daal na ko fi yàlla jëlee ci ah kattanu yàlla lépp avance jëm kanam euh, Seydina lan nga la làmb nag looy tàggatoo am invité la fii. Ah, ah, yow dinañ gën di yaatal après mais la première chose li wax mooy damay damay euh, damay émission bi. merci sa niveau reconnaître sa niveau. Euh, Iba Kane gis nga euh, la concurrence est une bonne chose ce qu'il faut éviter c'est une concurrence déloyale la concurrence est une bonne chose gis nga gis nit di liggéey liggéey bu am solo nga nangul kooku loolu dafa am solo yow noo bokk métier da ngay téye micro damay téye micro mm-hmm. mais aw ma problème